dernièrement dama lay remercier ti di woo ndaw ndaw Sénégal di woo ndaw Kër Moussa bu ñu xaar tey jii ñu ngi ci bras de fer boo xamante ne dañuy wax ne ci ay mbiru justice la ci ñaari point benn bi mooy candidature le président euh, Macky la beneen bi mooy le dossier xam nga dossier laa ko war a tuddee wala xam nan laa ko tuddee le complot le complot Adji Sarr boo xam ne yàlla def na depuis ba muy xew en 2021 vraiment sant nañ yàlla aussi euh, sans preuve ni rien dama gis réaction yi ci doon am rek euh, au niveau section recherche au niveau PV bi dugg na fi génn na fi ma ne lii rax na complot 2021 déjà dama ne lii rax na complot tey jii en tout cas yàlla jox nañu bëri raison ñi amoon loolu noonu mësuñu dute euh, waa ji deful dara loo xamante ne war nañ ko mën a jaar da lu dul bëgg ko yàq rek bëgg ko yàq yàq parce que tamit euh, fii ku fi def politique am yenn position yi surtout contre nguur pexe bu ne dinañ la ko wutal loo ndaw ndaw ndaw nag waaw suiver morogar dinañ la wutal pexe dinañ la wutal pexe boo xamante ne dinañ la dinañ la dugal ci yu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw loolu laa gëmoon te loolu laa gëm ba léegi na ndaw ñi préparé wu nañu préparé wu bu ñu toog gis nga carte d'identité na ko ñëpp wuti ou am 18 ans fi ak 2024 demal wuti sa carte d'identité ñu commission électorale yi pour pour gars yi inscrire ci liste électorale comme dañuy wax né bon inscrit dañ lay wax né mëno voter woutal sa carte d'identité ñu bind ci mëno voter période de révision électorale bu commencé rek de liste électorale bu commencé rek nga dem wax né damay voter te ku nekk ku nekk fa mu nekk vraiment na préparé wu nañ ñëpp ñibbi suñuy communes yi ñu dem voté fa comme ni muy wax quartier par quartier village par village commune par commune département par département région par région au niveau national et au niveau de la diaspora man mi man maa ngi Europe mais Sénégal lay voté 2024 mom, bu ma naree fekk bu ma naree fekk fii yaakaar fi foofu la ñuy gis euh, ku dugg dem voté ji pour Ousmane Sonko ñëwaat dugg dem voté ji dugaat gaal pour waaw te ñaanuma yàlla mu yegg foofu incha allah euh, fas nañ ko fal yéene fal deux mille 2024 mu liggéeyal ñu réew mi ndax xam nañ ne waa ji moom mënul dem moom moom xam na ne mënul dem ndax 2016 euh, ba mu saisir conseil constitutionnel pour mu wàññi mandaam ba ko conseil constitutionnel di wax ne déedéet mënoo ko mënoo ko wàññi ndax deux 2012 lañ la fal te 7 ans lañ la fay la article ba ko waxoon ne 7 ans lañ la fal la boobu moo ko waxoon ne mandat ñaar la ñaar euh, benn yoon rek nga ko mën a tollantil te la ko jàppoon 2000 ki bobu moko japon jàppoon moo ba fi mu ñëw confirmé wat ko donc euh, waji ji mënul bokk man xaw ma fan la mën jaar bu mën bok bokk vraiment déglu nañu suñu professeur yi ñu nawona ku melni ni Ismaïla Madior Fall nga xamné biñuy def première année vers les années 2009 2008 2009 buñ ko doon gis dañu yaakaar na sur le droit constitutionnel en chair maanaam jëmmuy droit constitutionnel mu ngi nii parce que bu doon wax di leen expliquer le droit constitutionnel

képp ku bokk Pastef mënatul bokk beneen euh, organisme politique wala beneen organisation politique waaye nag teg na ci ne tamit boo xam ne c'est contraire c'est contraire au au au statut et règlement du yaakaar naa noonu la ko waaye ba tax na damay woon ndaw ñëpp damay woo ndaw ñëpp ñu installer les cellules village yi sax bu ñu mënee am par deux cellules nañu am par deux cellules massifié ñu taxaw nag parce que Ousmane Sonko ba muy wax keroog wax nañ ci suratu Bahara wax nañu ne xalifa ku nekk na nekk xalifa këram d'abord waaw engagement total détermination mais taxaw ne Sénégal faa mu changé lu mën a nekk la lu mën a nekk mooy li ma doon wax sànq ci filtre yi nga xamante ne yi teg nañ ko ñun ñoo war a jóg te population bi nga xamante ne fa la ñuy installé Cimaf nii nii nii nii quel que soit alpha war nañu am organi organisation seen biir euh, vraiment ñu ndax dossier ma doon wax muy étude d'impact ak cahier de gestion environnementale bi war na nekk seen loxo mais war nañu xool aussi nan la ñuy mën a collaborer ba nga xamante ne mairie bi population bi euh, société bi dinañu am benn cadre te loolu ñu ngi ci ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax yàlla rek moo mën a ni ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko ñu leen di remercier bu baax a baax a baax waa Koma TV di leen jaajëfal di am mbégte ak contentement bu baax euh, am ak yéen entretien xëy na mbir mi sori na mënoon nañ ko def depuis mais di wax ne kër Moussa suñu kër la ñun ñoo ko liggéey euh, war nañu esprit de dépassement loolu laay am toujours moo tax amu ci gars yi kenn koo xamante garder naa la ne dana dox suñu diggante man esprit de dépassement la amee li gën a metti mooy voilà ci KMTV YouTube politique économie santé éducation religion sport. ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse